xam nga dafa am un problème de de de de cohérence euh, dans la démarche de de l'exécutif euh, président ba muy jël décret di abroger euh, le décret de convocation du corps électoral il ne s'est pas concerté euh, avec la la la la la, la classe politique ñu jàpp ne s'il est cohérent bu bu ko conseil constitutionnel ne euh, organiser euh, l'élection présidentielle dans les meilleurs délais Eh, nga xool ak pouvoir compétent yi mënoon na moom tamit xool dans les meilleurs délais dans les meilleures conditions dans les meilleures circonstances mu jàpp tout simplement la date de ces élections euh, mu am ñuy soupçonné mu jàpp ban date élections yi mun na am juin nee na avant l'hivernage mun na ko def mois de juin munoon na ko def mois de mois de mai mais xam nga ñoom bu ñu xool dans les meilleures conditions dinañ xool les fêtes religieuses ak euh, les événements ak les ramadans ak affaire yooyu. loolu nag may na matul waxtaan. Euh, mais président am na il a assez de conseils yow yow ak moom rek mun ngeen toog jàpp la date des élections dans les meilleures conditions dans les meilleures circonstances. xel du doy. ah. xel du doy. et puis j'aurais compris que waxtaan bi mu sekk ko. ak ñi nga xam ne ñooñu la élection bi concerné muy les candidats mais munoo ñëw teg candidat yi ne bañ bañ a ñëw ñooñu ñëwuñu nga bëgg a sekk waxtaan ak ñoo xam ne euh, voilà ils ne sont pas au centre du jeu noo xam nga kandida yi ñëwoon doon na rafet candidats yi nga xam ne ñoom la conseil constitutionnel retenir waaye bul fàtte ne am na candidats yoo xamante ni ay candidats la yoo xamante ne retenir ñu leen mais ñoom dañu jàpp ne ni leen écarté ànduñu ci ñaari argument am na yoo xam ne mën nañ koo déggee waxuma taxaw na de am na ñu ne ñoom dañ leen écarté parce que seen clé USB dañu def clé illisible vérifié wu ñu. comment 2019. vérifié wu ñu seen parrainage. comment 2019. waaw mhm. xam nga soo amee 49 candidats yu ñu éliminé. supposons même ñu bañoon am parrainage mais en moyenne ku nekk am ci trente mille parrainage te àgguñu parrainage parce que am na ñu am am na yoo xam ne wax nañ ne am nañu cinquante huit mille am na ñu wax quarante mille damay fois trente mille ñaata voix la. presque un million deux cent. ëpp na ko da nga am plus deux millions en tout cas d'électeurs est-ce que ñuy représenter un million de parrainage ou un million de citoyens waruñu leen déglu. am na ñoo xamante ne dañ ne ñoom dañ leen écarté mais ci sur la base la double nationalité te ñoom moment bi conseil constitutionnel di apprécier produit nañu benn acte bu wane ne amatuñu nationalité ñu éliminer leen mun nañ jàpp loolu ñu éliminer leen produit nañu décret bi ñëpp gis nañ ko kaaw Karim Wade par exemple mu ne man moment bi nga xam ne ci la conseil constitutionnel di statuer moment bi ñuy déposé euh, candidature yi man déposé gu ma woon sama décret boo ne ne amatuma nationalité française mais moment bi conseil constitutionnel di statuer déposé naa ko ñu écarté ma mais permettre ñoo xam ne am nañu yeneen nationalité ñu ne candidat bañ gis ci kenn jàpp ko te am na soo ñuy wax ne ba léegi am na ay candidats yoo xamante ni. ñu des retenir nañ leen te am na ñu yeneen nationalité mais xam nga loolu dafa jafe mi ngi mel ni tey may mën a Ndour suñu fay su nekkoon candidat. ñëw déposé carte nan la ñuy xamee ne amul beneen nationalité tant que amul dénonciation dafa nekk loo xamante ni mënuñu ko vérifier wala vérifier ko na difficile c'est vrai que conseil constitutionnel mënoon na ne bon vingt candidats laa am sénégalais yi généralement nationalité ji gën a am bu France la bu États-Unis peut-être ñu bari fii am nañu. nationalité Canada Grande-Bretagne Canada ma interroger ambassade yooyu. du ma mun a interroger cent quatre yi nekk ci àddina bi yëpp. mais ñooñu bàyyil ma interroger leen te ñoom soo leen interroger lay jox résultat bi dañ lay jox information bi mais defuñu ko et pour l' avenir loolu sax mun nañ ko def su gars yi def su fekkente ni garder nañu exigence su nationalité exclusive bi ñu ne pays yi nga xamante ni sénégalais yi généralement fa la ñuy am seen ñaareelu nationalité nañu leen laaj mais bii am na ñoo xamante ni donc déposé nañu seen nationalité seen seen renonciation beneen nationalité bi ñu écarté am ñoo xam ne am nañu ñaari nationalité ñu bàyyi leen loolu. mën na poser problème donc candidat spolié yi loolu wax nañ ko te loolu jàpp naa ne nekk na loo xam ne mun nañ ko dégg war nañ ko mën a dégg war nañ ko xel mun na ko nangu ne kat xool leen am na ñoo xam ne am nañu nationalité ñu ngi ci biir.